yoo xamante ni jot naa ko léegi euh, jóge ci sama avocat maître Moussa Sarr ndax ci fàttali euh, gannaaw biñ ma tegee loxo fii ci buntu suma assistance ci lu dul dëgg du yoon ñu bàgganteloo ma entre les commissariats brigade de recherche cave dañ ma présenter au juge d'instruction du deuxième cabinet monsieur Mamadou Seck bi ma jàkkaarloo ak moom mu ne ma ni procureur euh, mandat de dépôt la requérir requérir c'est-à-dire dañ ma war a yóbbu kaso waaye ci xarañtewu sama avocat maître Moussa Sarr bi génnee benn vidéo bi wone circonstance yi ñu ma jàppee nga xamante ni day réfuter charge yi nga xamante ni dañ ma ko tegoon basé sur l'article 80 juge bi bi mu ko gisee mu daal di ne nii Aliou mënuma la yóbbu kaso ndax euh, vidéo bi ma teg bët li ñu la teg comme charge vraiment vidéo bi tegg na tuuma googu donc dama lay bàyyi en liberté provisoire ci laa ñibbi sama kër. et comme vous savez aussi suite à ça ci ay fan ci ginnaaw benn dimanche la sax benn week-end d'ailleurs je sais pas pourquoi euh, sama avocat mu woo ma wax ma ni euh, procureur dafa def appel cest à diir euh, décision bi nga xamante ni juge d'instruction bi jël na ko pour mettre ma en liberté gannaaw bi mu xoolee vidéo boobu nga xamante ni day teggi tuuma yépp moom la attaqué jàpp ni euh, décision boobu dafa war a dañ et que dañ ma war a yóbbu kaso donc mu dem en chambre d'accusation mardi passé la amoon première euh, sama avocat demoon chambre d'accusation ñu renvoyé woon ko à aujourd'hui donc ñu ci bëri ñu ngi doon xaar liy xewee chambre d'accusation e léegi nii maa ngi jot euh, maître Sarr ne ni pare na plaidoirie am et que chambre d'accusation dafa délibéré décision bi dafa daf ko mettre en délibéré pour le 25 juillet prochain c'est-à-dire mardi prochain encore vous savez ce que ça veut dire vous connaissez ces pratiques-là mais du loolu moo ñuy xoqatal du loolu moo ñuy delloo ginnaaw ci suñu engagement pour le Sénégal suñu engagement pour suñu démocratie pour état de droit bi ñu xamee depuis 2011 bi ñu sosee Y'en ñi nekk ci nguur gi tey ñu nekkoon ci suñuy wet pour des principes tey ñoom ñu nekk ci nguur gi di xoqatal ay citoyens man sama dossier mooy li gën a tuuti ndax dinañ ci ñëw li waral marche euh, vendredi bii di ñëw ay dossiers yu gën a tar ay centaines de citoyens yi nga xamante ni euh, c'est des prisonniers politiques des prisonniers d'opinion ñu ngi leen di tëj ci kaso yi ay leaders politiques yu ñuy xoqatal bi ci mujj rek mooy monsieur Déthié Fall euh, gendarme yi ñëw assiégé siège am Euh, sans parler de monsieur Ousmane Sonko bi nga xamante ni aussi bokk na ci leaderu F24 yi boobu ba tey ñu ngi barricade këram ci lu teguwul ci dëgg teguwul ci yoon waaye au la de ça euh, njàqare bi sénégalais yi am muy la classe politique la société civile les sénégalais dans leur globalité ci perspective yi ñu jëm par rapport aux élections yi ñëw euh, donc loolu moom mooy waral euh, marché bi nga xamante ni dinañ ko woote donc di wax ni rek effectivement F24 force vive du Sénégal gannaaw bi mu wootee le 12 mai fële ca place de la nation sénégalais yu ñëw wuyu si en masse et on pense que en terme de rassemblement à la place de la nation ñun ñu ngi woon fii 2011 gis nañu place de la nation mu fees ak ay sénégalais contre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade waaye li ñu gis keroog le 12 mai je pense que jéggi na dayoo jéggi na loolu yëpp. e F24 li muy woote mooy nañu fexe ba vendredi bi ñu jëm vendredi 21 juillet 2023 bu quinze heures jotee. que li ñu gisoon place de la nation le 12 mai 2023 que mu ëpp ko ba président Macky Sall mu xam ni jàkkaarloog peuple sénégalais ne ni duma wut troisième candidature telle que la constitution le lui impose ak kàddoom imposé ko ko mu wax ko ñu bëri ñu rafetlu ko opinion internationale mu rafetlu ko ñenn ñi sax ci fii F24 sax saluer na décision boobu que loolu joxu ko le droit de torpiller le reste du processus en direction des élections loolu joxu ko droit muy bafouer les libertés publiques des Sénégalais ndax jàmm jooju mu woote ci discours am bi mu def le 3 juillet dernier bu dee dëgg la ci moom bu dee jàmm jooju mu wax dëgg la ci moom te te am na ci yàqin daf ko war a dox te ni mu ko war a doxee mooy fexe ba ces centaines de ces centaines de détenus politiques yi nga xamante ni ñu ngi ci kaso yi fépp ci Sénégal ko ñu libere leen li mu gën a kaaw ndax jàmm day lalu ci dëgg te dëgg mooy ñu libérer les détenus politiques ak les détenus d'opinion bi ci mujj rek mooy El Malick sec le chargé de communication de Pastef sur la base d'un audio bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi ci am El Malick Ndiaye sur la base d'un audio bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi ciy am jiixi jaaxa donc la libération des détenus politiques et des détenus d'opinion beneen bi mooy te mu am solo lool mooy des élections libres transparentes et inclusives tey F24 wax na ko ca njëlbeen ca chartam wax na ko mais société civile aussi wax na ko dans sa diversité te sénégalais yi ci biir kër yi loolu mooy seen mbëbët loolu mooy li ñu bëgg ci seen xol mooy président Macky Sall gannaaw bi mu nee du dem mu organiser ay élection yu libre yu transparente yu inclusive yi nga xamante ni du écarter benn candidat ndax F24 waxoon na clairement ni il fallait que ñu réhabiliter euh, monsieur Karim wadd monsieur Khalifa Sall ak monsieur Ousmane Sonko yi nga xamante ni ñaar ñi déjà ay artifice politico-judiciaire la président Macky Sall utilisé pour écarté la que nañ leen réhabiliter mais de la même manière aussi F24 wax na ni Euh, tous ces procès yi nga xamante ni sénégalais yëpp teg nañ ci bët toutes ces farces politico-judiciaires yi nga xamante ni mu ngi jëm ci le candidat Ousmane Sonko que mu dàq que sénégalais yëpp ko toutes les alternatives possibles que tous ces fils toutes ces filles du Sénégal yi nga xamante ni li baax seen xol ñuy ay homme politique di ay indépendant bugg jiite réew mi que le président Macky Sall qu'il soit un gentleman mu bàyyi leen ñoom ñëpp ñu doon ay alternatives yi nga xamante ni sénégalais yi dinañ leen déglu lu mbët seeni programme su boobaa ku ci nekk en âme et conscience nga xool ki ngay votel nga voté ko au lendemain du 24 février 2024 que Sénégal mu tabb président bu bees que nit ñi ñu xëy ñu dem yi ci jàmm ak salaam loolu nag li ko mën a indi nag mooy vraiment que président Macky Sall qu'il se ressaisisse et que mu crée les conditions d'élection libre transparente et inclusive mais au-delà de ça parce que loolu sax ci biir loolu la ñuy wax mbirum parenage bi ndax parrainage bi problème la di utiliser parrainage di xoqatal ay code ay candidats di leen écarter ci ay raisons yi nga xamante ni teguwul ci dara loolu aussi warul am ci élection yi ñu jëm kenn ci ñun ñi nekk fii exemple la ci monsieur Bougane Gueye Dany je pense que maître Abdoulaye Tine il a beaucoup travaillé sur son dossier donc la question des parrainages aussi donc pour terminer par rapport aux raisons yi nga xamante ni tax na F24 woo sénégalais yi le vendredi 21 juillet 2023 place de la nation mooy mbirum liberté yi muy mbirum liberté yi wax nañu ci ñi nga xamante ni ñu ngi ci kaso yi mais comment fait-il que Sénégal ñu toll ci diggante bi nga xamante ni amul benn manifestation pacifique déclarée bi nga xamante ni autorités yi dañuy décider de l'encadrer loolu ci lan la tegu mais c'est un recule bu grave ndax ci rappel F24 ne woon na fi dialogue du peuple ñu choisir benn espace bi nga xamante ni mu ngi parcelle Assainies mairie bi moom moo koy gérer d'habitude duñ soxla sax autorisation parce que c'est terrain qui est clôturé mairie moom moo koy louer c'est un espace privé de la mairie ñu ñëw ñu ne du fi amee ndax président Macky Sall nee na ci Dakar yépp benn dialogue rek moo fi war a am tey mooy dialogue bu mu organiser palais waa F24 ñu ne ñun jàmm la jiital ay ca nañu dem ci siège Malick Gakou ñu amal fa suñu déclaration gendarmerie ñëw génnee leen foofu ne du fi amee ñu teg ko ci lan dans un lieu privé c'est-à-dire siège parti politique ñu ne du ngeen fi defee déclaration ba tey F24 ne du ñu dans la mesure du possible tant qu'on confrontation bi dañ koy moytu ndax jàmm lañ jiital ñu jóge ci loolu woote deux rassemblements pacifique les 9 et 10 juin dernier benn bi place de la nation benn bi sur la VDN déclaré ñu tere ko mais ñu nekk ci contextu euh, tabaski bañ ku ñu booleeg sénégalais yi waaye ñu déglu sénégalais yi ndax bu ñu nee force vive du Sénégal sénégalais yi ñoo ñu tax a jóg ñu ne dañuy bàyyi manifestation yooyu dàqal leen ba jëmmi jamono tey nag ñu ngi woote pour un grand rassemblement pacifique le vendredi 21 juillet prochain à la place de la nation di ci woowee Séné di wo di ci woo Sénégalais yépp du ñu nangooti nag ñuy bafouer suñuy droit ndax la liberté de manifestation pacifique déclarée c'est un droit constitutionnel bi nga xamante ni président Macky Sall ak ñi mu àndal ils l'ont exercé à nos côtés du ñu bañ nag ñu ñuy xoqatal di ñu xoqatal di ñu bañal encore une manifestation bi nga xamante ni elle a été dans les règles de l'art pour vendredi ñu ngi ciy woo sénégalais yépp di ci woo sénégalais yi bépp sénégalais bu bëgg jàmm bépp sénégalais bu bëgg jàmm ci réew mi jàmm ju lalu ci dëgg na ñëw uyu si force vive du Sénégal le vendredi place de la nation à partir de 15 heures le vendredi 21 à la place de la nation pour la libération de tous les détenus politiques pour une élection libre transparente et inclusive pour les libertés, pour la sauvegarde des libertés, de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal.